ak Serigne Ndiaye numéro 2 bu Faas jàppante na ñaari xale yi ndeysaan lii mooy làmb ndeysaan ñaari xale yu tolloo doole Serigne Ndiaye ak Franc Franc jàpp na ci téere tànk ba dagg na ndeysaan ma ngay xëcc ci téere yi di dagg benn par benn ndeysaan ma ngay dagg téere ya ma ngay dagg téere ya ku nekk ngay fàqat sa téere morom di dagg di sànni ndeysaan ñoom ñaar Elimine François Gomis ak Serigne Ndiaye numéro 2 bu Faas ndeysaan gàllaaj ya dagg na mos nañoo bëre arène defet bi njëkk ndeysaan bu Serigne Ndiaye am ci face Franc mi moo ko daan ndeysaan jàppante nañ Serigne Ndiaye daw na jël ko ña ngay nattante ragal naa du doon lamb ju yomb quart de finale Jax Production arène nationale ndeysaan ña nga noonu ba tay Franc bëgg naa jàpp wër na ko ndomba Serigne Ndiaye bañ na ndaysaan ndaysaan ndaysaan maa ngi rocc na ko ñaari xale yi ba tey ñu ngi ci lamb ji sëñ Basirou Elimine François Gomis ak Fëriñ Njaay numéro 2 bu Faas Franc moo leen won ginnaaw mbokk Ndiaye numéro 2 moom ngeen jàkkaarloor ñaari luur quart de finale bi faw luur toog. mbokk kii nga xamante ne mooy Serigne Ndiaye ma nga noonu jàkkaarloo waat ak yéen ba tey ndeysaan ndeysaan Cheikh Tidiane ñaa mbokk yi qualifié na demi ci compétition bi moom Cheikh Tidiane ñaa daw na ndeysaan Franc takk na ko ña ngay jaayante doole ña jaay plaqué na ko war na ko ndomba Franc war na ko ndomba Franc war na ndomba Serigne Ndiaye numéro 2 koy def daan na ko wala déet daanaan na na Serigne Ndiaye daan na Serigne Ndiaye numéro 2 oh arène nationale lañ mujjee bëre waawaw waaw Franc daal koy jaay boppam daal di koy daan jël bu rëy keroog 10 millions la woon Jax production tey 3 la Faata production ay waay ndax Serigne Ndiaye da jël revanche Franc day confirmé en tout cas fii ak yu néew ñu xam ne waa neen di mujjee ki gëtam waaye fi toll nii 1-0 la waaw waa parcelle ñoo am ci kaw waa Fass. walla waa parcelle ñoo am un ci kaw waa Médina tey nag confirmation la wala revanche entre Corias et Émile François Gomis waaw ñaari mbër yoo xam ne kenn dootu leen présenté ci lutte ñu def ay preuve Serigne Ndiaye gis nañ ko ak génn bu am solo bi nga xam ne defoon na ko. jël arène nationale teg ca Adrien Senghor teg ca terrain gi di daanay champion François Gomis ba mu dellu si états ba léegi gala yi da koo jël arène nationale da koo jël Iba Mar da koo jël Mbour Caroline Faye da koo jël tey mu ngi ci Ñaaxaar eh. ah jël na ko plaqué na ko plaqué na ko daan na ko daan na ko daan eh!